ba mu fi dawee làqu ndax dañu ko doon toppee ca diwaanu Tchad crime contre l'humanité ak lu jëm ci wàllum xoqatal ak lu jëm ci wàllum torture yéen kaay gi nee na Abdou Diouf mi nga xam ne ba moo nekkoon jiitu réewum Sénégal moom moo nangu woon ñu indi Hissène Habré ci réewum Sénégal bi mu dikkee nag ci réew mi maanaam mayoon nañu ko jàmm féexaloon nañu ko ba ñu demee ba atum 2000 ñi nga xamante ni ñoo laru ci mbiri Hissène Habré dañoo porte plainte fii ci Sénégal yoon daal di ciy dugal loxoom jamono jooje juge Demba Kandji moo yoroon dossier bi ñu ubbi ci ab information judiciaire daal di ancien ISNA bëre résidence surveillée yéene kaay gi di Rewmi Quotidien nee na nag bi ñu demee ba 2000 Abdoulaye Wade jot ci réewum Sénégal ci la ISNA bëre féexaat maanaam di gunandaat good fine yéene kaay gi nee na ñi nga xam ne nag ñooy waa ONU parlement européen ak waa union africaine ñoom nag wax nañu Abdoulaye Wade bataay yi ngir nag mu daal di sujet ki nga xam ne mooy ISNA bëre wala nag ñu daal di koy jëlee Sénégal yóbbu ko Belgique loolu lépp nag Abdoulaye Wade daf koo lànkoon ba kandaar journal bi en tout cas li nga xam ne Abdoulaye na ko ba tëdd ca naaj wa ci lu di Hissène-Habré loole lépp Macky Sall daf ko nangu ndax ci atum 2012 Macky Sall daat ne nangu ñu àtte Hissène-Habré ci réewum Sénégal si la ñu fi teg li nga xam ne mooy nag chambre africaine extraordinaire Abdoul Mbaye ci biir yéene kaay gi nee na en tout cas li am ba des la mooy Hissène-Habré dafa tànnoon bi mu dikkee ci réewum Sénégal dañu ko mujj trahir faatu Hissène-Habré ci biir kasu bi loolu mbir la moo xam ne mbir mu doy waar a doy waar la te nag état bu Sénégal maanaam seen loxo maanaam génnu ci seen loxo siddu ci ndax njabootu Hissène-Habré ñoom nag sàkku ngir nag ci coronavirus bi ñu daal di koy génne waaye nag état bu Sénégal dafa lànkoon ba tëdd sa naaj waay yéen a kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas responsabilité bu Macky Sall engagé wu na ci faatug Hissène Habré yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Alioune Tine moom nag joxar bi na baaraamu tuuma ba pare di tuumaal gouvernement bu Sénégal ci faatug Hissène Habré yéen a kaay gi di 24 heures nee na en tout cas li am ba de sàll mooy Hissène Habré ndaanaan la ndax ñi nga xam ne ñooy waa RADDHO ak waa Forum Justiciable ñoom nag sàkku nañ ci ñetteelu bi ngir ñu génne Hissène Habré ci kaso bu Sénégal waaye nag loolee ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ñoom dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa Hissène Habré journal bi nee na la amee ci kaso bi ñàkk na bakkanam yéene kaay gi de l'info nee na Hissène Habré dem na fekki ki nga xam ne mooy Idriss Déby maître Malick Sall ñu fekk ko ci yéene kaay gi de la Soleil nee na nag Macky Sall demoon na bay bëgg libéré ki nga xam ne ma maanaam mooy Hissène Habré dañu doon xaar ñetteelu vague bi jàll ngir nag ñu daal di koy libéré ba tey ci biir journal bi moom bi ñu dénk wàllum yoon ci mi coronavirus ci biir kaso bi dafa feebaroon ñu yóbbu ko ci benn clinique fa la amee coronavirus yéen a kaay gi di source nee na benn clinique bu ñuy wax clinique du Cap foofee la Hissène Habré nag amee coronavirus fa lañ ko jëlee yóbbu ko hôpital principal fa la ñàkkee bakkanam yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Hissène Habré ci Sénégal la ñu koy denc waaye nag ñi nga xam ne ñooy gouvernement bu Tchad ñoom nag génn nee nañu duñu ki nga xam ne mooy Hissène Habré yéen a kaay na fin de l'histoire yéen a kaay gi di Vox nee na la fin d'une vie de combat yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu exilé gi nga xam ne defoon nañ koy Hissène Habré ci réewum Sénégal maanaam mbir mi daal neexoon na lool doore woon na waaye nag dafa mujjee ci yaakaar bu tas yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ci xëlim ak Assane Sambou nee na autorité sénégalaise yi maanaam mënuñoo am nag conscience tranquille ci faatuk Hissène Habré mun mënta nekk ndax nag la nga xam ne moo ko waral mooy chambre africaine extraordinaire yi nga xam ne moom la ñu fi tekk maanaam uniquement ngir atte Hissène Habré loolee kenn mësu koo gis ci àdduna bi te nag atte bi ba mu jeexee maanaam chambre boobee dañ ko fee jëlee te Macky Sall ci boppam moom njiitu réew mi dafa daal di séddee ci pression internationale bi nga xam ne maanaam tegoon nañ ko ci Macky Sall ak ay organisation yuy xeex ak ak yelleefu doomu aadama maanaam ñoo teg pression Macky Sall ngir nag mu àtte ki nga xam ne mooy Hissène Habré yéen a kaay gi de Les Échos ak Le Quotidien xëy nag di laaj a nee na Hissène Habré ana fan la ñu koy denc maanaam bërëb bi ñu koy denc jamono ji ay piccoog mbaaloo daan na say am ak lu am ci wàllum indemnisation ñi nga xam ne ñooy victime yi yéen a kaay gi nee na nag wala union européenne wala njabootug Hissène Habré ñoo war a nag ndàmp ñi nga xamante ni ay victime lañ kan moo ci ndàmp victime yi ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ak Vox Populi bàyyi mbir moomee wax ci suukar bu ñàkk bi nga xam ne am na jamono ji ci réewum Sénégal ñi nga xam ne nag ñooy commerçant yi ne mooy waa UNACOIS jàpp ñoom nag daan nañuy joxal bi baaraam tuuma ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum commerce si réew mi yéen a kaay gi di alerte nee na coronavirus bi tax na moo tax banque de sang jamono ji deret amutu fa